waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli yi mbokki taaliba yi mbokk yi ñuy seetaan yi ci Touba ci mbaarum Darou Khoudoss en direct ci bisu xasida bu Touba ñoo ngi leen di nuyu tëdd leen ziar mu mel ni ñu ngi ci bisu xasida bu Touba ñu fas yéene ànd ak sunu sëriñ sunu kilifa di sëriñ Abo Mbacke bokk ci waa kër Soxna Fat Dia moom nañ fas yéene àndal incha allahu taala mu yëkkate ay kàddu soññe ak ay kaddu yu am solo jëmale ko ci bis bi kon defee ñu maasee ñun ñëpp. teewlu ki nga xam ne si moo di sëñ Abo Mbacke waaye laat loolu ñuy sant bu baax a baax mboolem ñi nga xam si ñoo fi teew ñëpp rawatina kuréelkat yi rawatina ñiy durus ñëpp rek kon bu maase dafa ñu maase ñun ñëpp teewlu sëñ Abo Mbacke sëñ Abo bisimilah. waaw ah, bisimilahi rahmaani rahiim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xamul xasaayit ñëpp di leen ndokkeel bu baax ci bis bu tedd bi bisum ngërëm te xasida yi lépp ngërëm la yemul sax ci ngërëm waaye ngërëm li gën a mag la li ko sëñ Tuubaa ñaanee ci nooru daara yi waajal bi xatt ya rabbi indaka ak bara ridwaani wa inda jundika kon moo ngi sant yàlla ci yëgal bi ko yëgal boole ñu ko boole ñu ci bu ñu ko yëgalutoon ñu dégg ko rek dañoo war a bàyyi la ñuy def lépp ñëw ndax yëngu bu yëngu buñ gën a xemmeem gën caa séentu ngërëmul yàlla ci ci bu mel nii amut kon sëñ Cheikh Dieng mi nga xam ne moo jiite euh, euh, kuréel yi kuréel yi Tuubaa yeeg Mawaahibu Naafi ak mboolem ahlul qasaayid fi ñu mën a nekk rek ndax ñi teew ñi mën a teew teew nañ waaye ñi mënut teew ku ne xam na ne ñu ngi koy ànd ak ñoom ci seeni xol loolu ñëpp xam nañ ko kon nag noo ngi sant yàlla bu baax di di leen santal yàlla ñoom ndax lu mel nii ku ci yàlla xëy nga ciy yëngu la la war ci sant kenn xamul nu mu toll ndax xasida yi yi waat naag yi àdduna ak yi wa àllaaxira dafa mel ne sëñ bi sëñ bi dafa summiku ci xasida yi rek xasida yi rek ñooy sëñ bi moom jëmmam da ngay gis ci biir xasaayid yi lu muy lu muy wax ci boppam di wan na yàlla defal na ko ko ak di ko ñaan ci jëmmam maa ngi gis muy wane na loola mi ngi ci xasida yi ak di ko ñaan ci xasida yi mbindam ci ci misaal lam naan ca lam wax ci nuuru daara yi ne yàlla yàlla nag ma booleel wala mboolem li tàqalikoo ci nit ñu baax ñi li tàqalikoo ci ñoom ñëpp nag ma ko booleel ci sama jëmm maanaam lu baax yu baax yi nga xam ne taqalikoo na ci mboolem nit ñu baax ña xam nga nit yàlla yi kii day gën ci wet gi kii gën ci lii kii am lii kii am lii mu ne lool lay tasaaroo ci ñoom nag la yahab jama alladi tafarraqa bayna yi karaman wal tafruqan loolu yi dañu gis mu ñaanal ko ci biir xasida yi naan sunu boroom nag ma boole li yiw yi taqalikoo yëpp ñu daje sama xasida yi lijma jamia ma tafarraqa la daa xattu min alxayri wa safil xala daal gis nga yàlla def na ko subhaana man jaalani lil Mustafa mujizatan mujizatan wala jaada bi istifa tudd naa sellug yàlla bi nga xam ne def na ma may mujiza ci yonent bi waxaat na ci biir xasida yi ñaan boroom naan ko wajal xuruuf yi mujizati na nga def sama mbind mooy ay mujiza kon jëmmam rek mooy xasaayid yi loolu nag da nga da nga ciy déggee na sëñ Cheikh Sarr nattali woon ne sëñ Tuubaa bi fii bëgg a dafa wax ne dafa dafa woo moo Modou Moustapha ca la bokk sëñ Massamba ca la bokk sëñ Modou Massamba Diop ca la bokk ne leen kenn ko ne la nga am ci xasaayit indil ma ko andi ko ñoom ñëpp kenn ku ne andi la nga am juub ko ci rombu jaan toog tiim ko waaye da leen caa booleel ne leen bu kenn andi loo moomut loo moomut kon loolu la nga cay la nga cay dégg mooy euh, yenn waayefal yi ñuy waayefal dafee na xasid ak jàmbur koo ko fekk mën nga koo jël yóbbu loolu loolu sëñ Tuba daawut doxee noonu kon bu kenn andi loo moomul lay wax ba daje mu ne leen jibril alayhi salaam dafa maa ñëwal ne ma def ak dindi bàyyi ko xasida yi te ñëw ñu deyaale def ak dindi loolu kon fiir fiiri na li ma wax léegi ne lu mu wax ci boppam ñaari da ngay gis mu koy waxaat ne loolu mi ngi ci biir xasaa yi def ak dindi bàyyi ko xasida te ñëw ñu deyaale tegal ko tegal ko ci lu am loo xam ne jar na rek fonk xasaayid lool di ko jàng boo ko dul jàngit nga koy wormaal di ko denc daf caa teg na xasida yii ngeen di jàng ay yi nga xam ne du ngeen koy jàng mokkul leen ko waaye du da ngeen koo denc ci barab di ko wormaal kenn ku ne ci yéen bu dee ba ruuxam tàggoog jëmmam bañ di ko waajal dañuy jiitu ci bàmmeelam di ko faxaar saa buñ ko robee ba wëlbatiku ñu ne ñu xeet génn di ko wétali di ko fa bégal ci lu xelam dajak lu xel lu xelam dajul nee na ba bis boo ñu jiitu ko fa ñuy yow layal ko du am loolu bu ñëwee ñu ne ko duxulul jannata ma daaxilin ñoom wax ñu am loolu xasaayit kon kon xasida yi yoo ci mën a jàng ak yee dul jàng di ko wormaal ci barab yiwu ca nag kenn xamul nu mu toll yiwu àdduna daal yiwu àllaaxira sëñ Tuubaa dafa na ko xasaayit yi kon nag képp ku ci yëngu rek yu mel na ñii war nañoo dalal seen xel ndax wa kulla man i'tana biha la waxoon na ma ko waxee ca maxaari ca ma jaalibatul maraaxib képp ku ci sonne <coughs> noo ci mën a taxawee rek aw yiw la kon nag wan fax biha kulla man ahabbaha wa kulla man i'tana biha aw aana ala taxsiliha képp ku ko bëgg na nga ko ci jariñ képp ku ko sonne jéego boo ci seq na ko ci jariñ képp ku ku ku fexe ñu am ko na nga ko ci jariñ loolu nag day mel na xasaay di yëpp lamb na loolu kon jéego bu ci waay seqi rek yàlla nay njariñ ci moom di njariñ ci taalib yi sëñ Tuubaa yëpp ak jullit yëpp fuñ mën a nekk ndax sëñ Tuubaa xéewalug ñëpp la da ko seex si dee waxoon rek a cheikhu ahmadou niamatun anama allahu biha ayatu min al ayati te ne sëñ la gu yàlla maye de kéemaan ci kéemaane yàlla yi kon na xéewalug ñëpp la yàlla ko ñëpp xéewaloo wasalaamaaleykum wa wa barakatu